jeune homme parce que am na ku ci woo imam ma Diop mhm. parce que on s'apprêtait de à euh, intenter quelque chose ci wàllu yoon mhm. parce que kenn amul droit ak koo mën a doon sous prétexte de liberté d'expression dugg ci diine jàmbur di ko jalgati yaa xam pour bëgg prix littéraire wala pour bëgg lu neex qui que ce soit alors finalement le principe était retenu mhm. que ñu arranger une émission pour qu'il présente ses excuses à la Oumma parce que dafa doon njëkk wax président si ak Jamra ñu ne ko déedéet Jamra ne compte pas mm. ñun ay taalibe rek lañ waaye du Jamra rek a trouvé un petit temps d'antenne l'a accepté un petit temps d'antenne d'un quart d'heure à la 2S et puis tout était rentré dans l'ordre mm. dañ ci toog tuuti rek il a eu des problèmes de santé mu décédé et a eu des ah, interprétations loolu yàlla ma ne ko yéen wax sax yàlla bind na yàlla na yéex euh, seen dem voilà yàlla dafa dogaloon moom ci période boobu la waroon dem ba wi ñu borom alors et je termine par un dernier cas de Bougar Mouhamed Bougar euh, Sarr euh, parce que waxtu bi voilà moo ñuy xaw a dab hmm. ba nga liiree livre bi est ce que jàpp ne carrément les sénégalais. alors livre bi critiqué pour bi. je maa ngi répété critiqué kat yi te liiru leen ko mënu leen muus ba ñu ñëw ànd ak yéen di critiqué. Mhm. tàccukat yi tàccukat yi tubaab yi parce que ñoom jàpp nañ ne comme que tubaab yi tàccu nañ nag yéen da ngeen war a tàccu mbaa ngeen noppi ngi leen di ne mënu leen muus ba Jamra ànd ak yéen di tàccu ci loo xam ne ñu ngi koy liir te pare guñu mm-hmm. pourquoi ma ne ñu ngi koy liir te pare guñu xam nga bu ñu naan benn sagaru Maxtaar Gueye moo ko liir rek joxe avem c' trop léger moo tax on a créé un comité de lecture dañ ciy jënd ñetti ouvrage qui coûte qui coûte parce que mm-hmm. defe naa onze mille cinq cent euh, beneen bi ñu ngi ko amee treize mille. ah mais c'est pas cher. pour voilà. une production ah, intellectuelle ah ñun day cher ñun ay euh, ndongol <laughs> daara lañ. ñun ay ndongol daara lañ ñun du ñu defar ay faux billets <laughs> du ñu trafiquer ay passeport diplomatique <laughs> voilà kon nag dix mille francs sax cher na ci ñun waxatuma la euh, un peu plus. alors donc comité de lecture bi ñu ngi lire. Mhm. te on a les deux formats. on a le format euh, physique les trois cent quatre vingt et on a le format électronique les 421 pages ñu ngi liir voilà mais déjà li ma la ci mën a wax euh, am na ci des aspects qui ne sont pas encourageants par exemple euh, am na moment boo xam ne euh, daanaka dafa traité africains yi que ba léegi ñu ngi dund à l'ère de la barbarie et allant même jusqu'à dire que la colonisation aurait dû continuer parce que euh, l'Africain ne connaît que la ripaille, l'ec, la fornication, njalo et le culte des arbustes, c'est-à-dire jaamu xërëm après nag il y des gens qui ont dit waaye mais bi mu koy wax dafa cité diw ma ne ko déedéet loolu du lay. mais kooku ngay cité comme que c'est un érigé moom sax ko tane ki ñuy cité ndax racisme. bañ nit ku ñuul wax yu bon yow nga koy utal plateforme dans ton ouvrage qui est d'ailleurs maintenant primé eh bien di reprendre à ton propre compte wax ju ñaaw jooju. Mm. alors kon dafa mel ni. yaa ngi tiré contre mais maman le fait ki nga mm. xam ne excusez-moi man lay dagg di euh, Mouhamed Bougar Sarr. Euh, di nga xam ne dañ ko primé si concours euh, Goncourt nga xam ne fu mu toll nii mun nañu wax ne au Sénégal dañoo am benn sentiment anti français pour ne pas dire euh, anti colonisation moo tax lii nga xam ne Mouhamed Bougar Sarr mu mu wax mu choqué parce que dañuy dégg benn yoon du ñaar si ay plateau télé des personnes ñoo xam ne sax ay autorités leen yi nekk fii ci dëkk bi ñu tenir les même propos yi nga xam ne ñu ngi koy reproché kii nga xam ne mooy euh, Mouhamed Bougar Sarr. waaw mais taxul taxul ñooñu nekk ci ci yoon. xam nga olof dafa wax ne. du man rek mais lu tax ñooñu lynchewul leen su espace public. waaw wax ma ci kenn boo ma euh, waxee kenn ma lynche ko soo ma ci waxee kenn. mais c'est le discours de tous les jours. Ah, euh, Sénégal est-ce que ñun waruñoo delloowaat suñu bopp tubaab yi. donc euh, Sénégal l'africain bu lekkee ba suur rek voilà tout est bien pour elle. alors ñu gëmuñu yàlla da ci xërëm la ñuy nekk nag. voilà nekkul lu. alors loolu inventé quand même. ñi koy layal naan non il a repris les propos d'un tel. ma ne la un tel buy saaga sa maam ak sa xeet. Ah. utal ko tribune pour relayer et donner une plus grande portée ci ay waxam ju ñaaw kooku euh, yaa ngi verser de l'eau dans son vin <laughs> euh, rafetul parce que wax ju ñaaw fa mu na mu gën a gàtte ak niñ ko mën a tënkee fa mu jógee rek confiné ko fa fa la waaye nag nga yaatal ko dans ton ouvrage euh, ñi ko rafet lu bariwul man gis naa ñoo xam ne ba ñu eggee à la page quatre-vingt-six parce que yii ma lay wax nii foofu la ne mm-hmm. ils ont arrêté ils ont de lire mais sinon depuis le début ils ont vu qu'il a une belle plume qu'il a bien la concordance des temps les syntaxes qu'il maîtrise bien euh, euh, euh les matériaux techniques littéraires mhm. pour euh, euh, pour faire une œuvre romancée yooyu gis nañ ko waaye ba ñëwee ba ci page bii ma lay wax 86 tubaab bi di wax yu ñaaw yooyu moom mu di ko reprendre mhm. alors ñu bari yi ont été déçus alors rawatina nag Goncourt dafa nekk raaya bi gën a mag ci wàllu euh, euh, euh, récompense littéraire parce que ay Renaudot am na ak yeneen waaye Goncourt li tax ñëpp di ko déglu benn yoon la par an et c'est la première fois ci Afrique sow jant raaya woowu ñu jox ko koo xam ne africain la rawatina muy doomu réew mi waaye tamit deuxième élément bi xaw a tey xel yu bari mooy Afrique sowu jant Sénégal ñaata grand romancier ñoo fi ay jaloore yu mag waaye nag jalloore yoo xam ne ci waaru écriture littéraire littéraire ñu ngi ciy sargal nit ku ñuul di défendre nit ku ñuul ba pare di ŋaññe tubaab bi nga xam ne mu ngi ana ana l'aventure ambiguë mm-hmm. de Cheikh Hamidou Kane concours faalewu ko tout à fait ana euh, Amadou Hampâté Bâ concours faalewu ko uh-huh. ana Mariama Ba une si longue lettre concours faalewu ko waaye kii wax rek tubaab yëpp mab ba ñëw ba pare nag Euh, présidente Amnesty bu France di jigéen daal ne ay eh, waay waay ma bég waay mu ne kii day dañ ko war a jàppale xëy na sax il pourra faire avancer la cause LGBT au Sénégal. mais résumé aussi euh, <laughs> prix bi nga xam ne jox nañ ko Mouhamed Bougar euh, hmm. Sarr euh, si wàllum LGBT wala sax loo xam ne dafa arranger le monde occidental est-ce que nekkul aussi jël nit ku ñuul rek classé ko fi que der bu weex bi classé mënul def loo xam ne lenn rek lu lu lu lu yéeme foofu laay duggee ak sama transi transition est-ce que le fait que aussi ku mel ni comme Diary Sow wax ne finalement je vous emmerde est-ce que finalement elle n'a pas raison aussi. waaw balaa ngaa tijji ñu bëgg a tënk jaari soo donc ma wax ni. Ah, oh, mm. par honnêteté intellectuelle il faut lui reconnaître sa euh, qualité voilà faut le reconnaître. Ah, ah. ñaareel ba euh, il faut lui rendre hommage ci li mu rendre hommage à un écrivain africain qui a été massacré par la critique littéraire. tout à fait muy euh, compliqué la. Mm. Yambo. Euh, euh, Wolo Gem. Euh, qui a été. La régie, primé, mais après ñu sommes ko Voilà. Alors, mais sinon, encore une fois, et je le dis à l'attention de vos téléspectateurs, pareil ñu Voilà, Bougnou pareil, Inch'Allah. Parce que 421 pages, je dois dire que 200 jàll na avec annotation. Alors, si vous allah Inch'Allah, nous faisons. Euh, à l'attention de l'opinion nationale internationale position Jamra et c'est notre droit le parce que ñoom ñoo ko bind daal di ko balancer au niveau de l'espace public au niveau de euh, du grand public te ñun ci grand public la ñu ne kon on a notre alors léegi xale bi xale bi <laughs> xale bi dafa juum. pense que. elle s'est excusée mais n'a pas je pense que ñaar la am defe naa la vingt et un. vingt ki xale la. nañ ko jéggal rek parce que xam nga wax na tarxiis na. Mm-hmm. ba pare nag. Euh, parce que tubaab dafa ne euh, ce n'est pas commettre une erreur qui est mauvaise en soi mais le ce fait de persister dans l'erreur qui est diabolique waaye comme que reculer na dëgg yàlla nañ ko jéggal. mais El Hadj Cissé moom dafa ne carrément. wax yii nii adressé wu ko à tous les dafa ne waxuma waxuma ak ñii ñee laa wax. voilà. waaw léegi donc elle campe toujours. waaye léegi nag ñun. man xam nga man da nga ma invité. beneen saa aussi comme que moom waxul ñun. du ma dem di xuloo ak moom. moom Makhtar beneen saa aussi est ce que les sénégalais aussi euh, du ñu dem ba am euh, benn certaine exagération pour pour pour pour ne pas dire euh, bëgg nekk aussi dans le jugement facile aussi. waaw xam nga Sénégal day mënuñu ci dara. dafa mës a bindoo noonu bu bu mbir amee gisuloo ndeysaan malheureusement on n'a pas le temps d'en parler. mooy le couple le drame. dinañ ci wax fi mu ne boo duggee si réseaux yi y des milliers de procureurs. et des milliers de Sénégalais ku ci nekk juge d'instruction nga. ñii di instruire en charge ñii di instruire en décharge. l'affaire Paye problème de couple. mën na euh, leen nag mën na leen nag. waaye waaye nañ leen maanu sur l'affaire Paye nattoo leen dal te metti na tout à fait ces deux familles ont été frappées de plein fouet mhm. par natt boo xam ne foo ko natt ci mettit metti na mhm. bakken bu rot yemoo ci rot rek waaye nga yóbbaale sa ñetti doom kon nañ ci maanu mhm. rawatina y a beaucoup de versions parce que au début dañu ne woon dafa piqûre doom yi ñu faatu waaye gis nañ autopsie bi gis nañ ne c'est autre chose strangulation la ba noppi itam li waa ji wax si lettre testament am eh bien gis nañu Euh, l'autre camp daal di def benn audio soi-disant fuité euh, qui qui qui s'inscrit en faux par rapport à beaucoup de thèses yu mu ci développé kon mooy li tubaab di wax rek la parole de l'un contre l'autre comme que nag ñi ñi yelloo saytu mbir yu mel ni ñu ngi saytu ñun baadoola yi nañu maanu te déglu ñi yore mbir mi ñu saytu seen saytu te en attendant en tant que jullit nañu leen ñaanal mhm. yàlla àtte leen ci yërmandeem te ndaw si tamit mat naa ñaan la ndax nga perdre d'un coup que nga sëy quinze ans perdre ci même seconde bi ñetti doom ak ëmb nu mu méttee ku ne nga ëmb ko juróom-ñeenti weer nga xëy rek ñu ne la jeex na. ñu bëgg la lyncher aussi sur les réseaux sociaux ba pare ci réseaux sociaux yi métti na. Mm-hmm. kooku tam nañ ko ñaanal yàlla may ko xolu muñ. te itam maa ngi suggéré à famille ñu wutal ko un accompagnement psychologique balaa muy jur beneen drame mhm. mën na ko dikkal dépression wala mara daytaali leneen mhm. voilà kon nag loolu daal la ñuy ñaan nañu maanu ci problème mu jàmbur ñu respecté dëju jàmbur parce que ñeenti dëj la mhm. te ñu bàyyi ngawti ngawte di jaay procureur te maa ngi yow ci yem xamuñ ci dara. merci kon nag yal na yàlla def euh, jàmm ci réew mi. merci yal yàlla dàqal réew mi Sénégal. te làqal ñu Sénégal fu yàq yeggul. asalaamaaleykum wa